ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ci ànd beek ñun fii ci cinquième édition foire internationale bu kaw Kaolack ci xibaar yiñ ko jagleel mbokk yi tey ji xibaar yi dañuy ñëw yéen ci ñi nga xam ne ñoo di exposant yi nga xam ne ñëw nañ ci foire bi bàyyi ko fu ne moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitim réew kenn ku ci nekk am produit boo xam ne moom nga ñëw exposé ko ñoom fësal nañ seen ak mbégte ci organisation foire bi waaye it nee ñu gis nañ ci seen bopp ñi xam ñoo di visiteurs yi wax nañ ne ñu ngi ñëw bu baax a baax ñu ànd lu kàddu yi ñenn ci exposants yi nga xamante ni ci biir réew mi lañ bàyyeekoo ak ñi nga xam ne dañoo bàyyeekoo bitim réew ñoo exposé ci foire internationale bu Kaolack. Première fois je fais cela, euh, je fais avant Dakar, les gens parlent Kaolack et c'est une fois et j'ai essayé. Maintenant, je suis là avec mon produit. Ça va, c'est une première fois, elle est bonne, euh, les gens mais ne connaît pas encore mon produit. Pas comme en Dakar, là-bas, les personnes connaissent déjà. Ici, est une toute nouvelle chose. C'est ok, vous regardez, c'est si propre, euh, c'est si bien organisé. Un bon truc. Nous sommes foire, indi fi 30 à 35 entrepreneurs et porteurs de projet defal leen ay renforcement de capacité indi leen si foire bi aussi pour defal leen benn genre suivi permettre leen aussi ñu saisir opportunité bi mën a échanger mën a développer ay relations commerciales pour aussi màgg si xam lan mooy entreprise ak nu muy taxawee ak nu muy doxee. waaw ñu bëree bëri nag ñu ngi ñëw di laajte lan mooy pack entrepreneuriat am na sax ñu si commencé inscrire pour 2020 amal na leen njëriñ trop ñu fi nekk daal ñu ngi si gis seen bopp di jaajëfal euh, ñu jiite sembre de commerce ku mel ni le président Serigne Mboup ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax ku yaakaar si jeunes la bëgg leen a jàppale bu baax a baax. sant yàlla biñ ko fekkee waatee rek comme chaque année waaw sant yàlla da lu initiative bi vraiment rafet na rafet na macha allah waaw rafetlu lañ ko daal trop. waa macha allah organisation bi tamit macha allah mais nag nee nañ euh, yéen ñi nga xam ne ñi fiy ñëw nee nañ nag Kaolack attanatul lii kon kon jaar na sëriñ boobu gën ko yokk gën a deferaat dafa gën a ampleur waa dafa gën a am ampleur naa am moom. mu nekkoon euh, kàddu yi ñenn ci exposant yi nga xam ne taataan nañ seen xalaat jëmee ci organisation foire bi mbokk yi ba léegi ci foire bi la ñuy des ndax ki nga xam ne moo di gouverneur bu région bu Kaolack di Alioune Badara Mbengue amal na visite ci foire bi ànd ak yenn chef de service yi ak président chambre de commerce d'industrie et d'agriculture bu Kaolack monsieur Serigne Mboup mu rafetluwaat nag bu baax a baax li nga xam ne moo jëm ci organisation foire bi. ak innovation yi nga xam ne indi nañ ko ren ji rawatina ñi nga xam ne ñoo di institution yi ak stand yi nga xam ne jël nañ ko ngir exposé fa yi nga xam ne mooy seenab liggéey ngir askan wi gën ko mën a xam ñu ànd teelu kàddu yi Alioune Badara Mbengue di gouverneur bu région bu Kaolack ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ginnaaw visite boobu le mais tey ma ne il faut ma ñëw ànd ak chef de service yi pour visiter si foire bi mais li ma fi gis daal xam naa ne dal na xel dal na xel parce que gis nañ fi ay opérateur économique yu fi dëkk mais aussi ay opérateur économique yu jógee ci biir réew mi ak yu nga xam ne ñu ngi jógee bitim réew li ñu fi gis nag mooy am na ay innovation innovation yi mooy lan mooy am na fi mm, ay ay structure administrative mais aussi ay institution yu nga xam ne ñëw nañ pour wane seen i produit pour échanger ak nit ñi par exemple lu mel ni structure yi euh, gis nañ fi chambre de commerce chambre de commerce ñëw na fi euh, en collaboration ak tribunal de greffier en chef gis nañ ko fi gis nañ fi chef de service su agence nationale de la statistique gis nañ fi euh, le centre des services fiscaux ñoo ñëpp dañuy ñëw euh, jàppale ci chambre de commerce parce que chambre de commerce am na benn structure bu nga xam ne mooy faciliter la création d'entreprise gis nañ leen fii gis nañ ne ay nit ñu nga xam ne nii bëgg nañoo créer entreprise autour d'un guichet unique ñooñu tey jii bu ñu ñëwee en en en 48 heures maximum danañ leen dimbale pour ñu créer seen entreprise loolu danañu dana ñu dimbale pour que vraiment informel bi wàññeeku. mu nekkoon kàddu yi Alioune Badara Mbengue di gouverneur bu région bu kaw Kaolack ci nemmeek bi nga xam ne mu ko doon amal ci foire bi. mbokk yi ba léegi ci foire bi bu weesoo njënd ak njaay lël yi nga xam ne ñu ngi ko fi amal fédération des chambres de commerce d'industrie bu Afrique sowu jant ñu naan ko FEWASI amal nañ assemblée générale fii ci Kaolack ci teewaayuk président chambre de commerce yi nga xam ne ñoo nekk ci espace CEDEAO ci njiitalu présidente conseil économique sociale et environnemental bu Sénégal madame Aminata Touré ñu amal fii waxtaan yu am solo jëmee ci tolluwaayu marché CEDEAO bi ci njënd ak li nga xam ne mooy jafe-jafe yi ak jéego yi nga xam ne war nañ koo mën a def ba gën a li nga xam ne moom moo di njënd meeg jaay bi ci espace CEDEAO ñu ànd teewlu compte rendu bi nga xam ne defal lañ leen ko ci boobule assemblée général saafara jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci njënd ak ci diggante réew yi nga xam ne ñoo nekk ci CEDEAO nekk na lu yitteel lool président chambre de commerce yi nga xam ne ñoo bokk ci kuréel gile ci seen assemblée générale bi nga xam ne moom lañ doon amal ci Kaolack ki jiite conseil économique social et environnemental bu Sénégal di madame Aminata Touré ñëwaat na ci jafe-jafe yooyu la. Euh, moom la ñu ci gis mooy bu fekkee ne euh, réew yi vraiment d'accord nañu pour am intégration africaine te président Macky Sall liggéey ci lu am solo bi mu waxee affaire train Dakar Bamako bi li mu ci jublu woon mooy vraiment facilité les échanges économiques maanaam boo yoree sa marchandise mu teel a mën a dem fa nga ko bëgg a yóbbu euh, ci Afrique de l'Ouest marchandise bu jógee foofu it mën a ñëw ndax gis nañ ne dem ak dikk bi mooy lii nga xam ne moo gën a gàllankoor commerce intracommunautaire bi loolu yëpp ñoom it ñu ngi koy waxtaanee. ki nga xam ne moo jiite union des chambres de commerce bu Sénégal di Serigne Boub moom muy xamle ne marché africain bi africain yi rek mën nañ koo couvrir. lu ñu war a jéem a def mooy yii nañu war a def di daje ak ñun. man damay gis toujours ñuy wax naan président nañu yóbbu euh, Corée nañu yóbbu ndànk mais fi ñu war a jóg ñun dox ko mooy fexe ba suñ marché ñu jël ko mënuñu couvrir suñ marché bëgg exporter je donne un exemple Sénégal Afrique mi ngi am 2000 milliards CFA ci consommation textile mais industrie textile yi ci Afrique yëpp daanu na ñuy importer. ñu ngi wut ay milliards yi milliards di wuti diwlin te ñëpp xam na ne li nekk ci Afrique ci diw ak lépp ci ci matière première am na kon dama yaakaar ne rencontre yu mel nii am na solo mais l'objectivement mooy ñu def ko te li ñuy war a njëkk a def mooy regle barrière logistique yi. kenn mënta suqali njënd meeg njaay mi ci diggante réewu Afrique yi yombal ko te jàppalewuñ bu baax a baax secteur privé bi loole di xalaatu Moustapha si selo dem wute ab association la. mais lii ñu yor ñun loi moo ko créé noo war a dox diggante secteur privé ak état mais malheureusement état yi cër bi ñu war a jox joxuñu ñu ko moom laa wax ni mi président de la république maa ngi koy ñaan mu woo chambre de commerce yi ñu waxtaan ci problème yi ndax jafe-jafe yi mënuñu ko jaar fenn fu dul ci chambre de commerce mais rëq-rëq yi ñuy wax ci li nu andi mooy jëndante bi jaayante bi ak duggante bi ak jënante bi ni mu war a doxe état yi ñoo ko gàllankoor kilifa yi nga xam ne ñoo teewoon ci assemblée générale bi santaat nañ bu baax la président Serigne Mboup ci taxawaayam ndam li nga xam ne am na ko ci organisation foire internationale bu Kaolack bi lii euh, lu rëy la duma dellu si ci li présidente Mimi Touré wax ndax ñu bëri ci capital yi lañ koy def mais mu indi ko ci capital régional muy ab décentralisation wax ñu ko ñun ñi nga xam ne dañu bokk ak moom liggéey bi ñu ñëw fekke ko bariwuma woon jot ndax wéruma mais mënuma bañ a ñëw ndax xamal ko ni dama d'accord ci li muy doxal mais li jéggee loolu it dafa def foire bu mag international woo fi ñu bëree bëree bëri chambre de commerce yi yëpp loolu la ñu war a def man sama chambre amul doole bi amul xaalis bu mu ko mën a defee Je voudrais également adresser toutes mes félicitations à mon ami et collègue du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, M. Serigne président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack et président de l'Union nationale. J'en profite pour magnifier à nouveau son leadership dans l'organisation en cours de la Foire internationale de Kaolack, FICA, rendez-vous de premier ordre de fédération bi nga xam ne moo ëmb chambre de commerce yi nekkee ci Afrique soowu jant ñoom takku nañ bu baax a baax ngir xool yan yoon la ñuy jaar ngir gën a mën a développer jënd meeg njaay mi ci diggante réew yi nga xam ne ñoo nekk ci espace CEDEAO bi ba mën ko weesu sax waaye loolee faw ñi nga xam ne ñoo di njiitu réew yu Afrique yi am nañu rôle bu am solo buñ ci war a jouer. mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel li la ñu indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne mooy bàyyi ko fii ci cinquième édition foire internationale bu kaw Kaolack santaat leen gërëm leen ci teewlu gi dig leen daje incha allah ci yeneen i xibaar yi bàyyi ko fii ci cœur de ville bi jërë ngeen jëf.